peñu ma saar noonu ma gis ca loxol ndejooru ko toog ca ngàngune ma téere bu ñu bind biir ak biti tey ko juróom ñaari yoon ak sondeel noonu ma gis malaaka mu am doole muy xàccu naan ku yeyoo dindi tayu yi te ubbi téere bi te amul kenn muy ca asamaan muy ci kaw suuf muy ci biir suuf ku mënanu ubbi téere bi mbaa mu xool ci biir ma jooy jooy yu metti ndax li kenn yeyowul woona a ubbi téere bi mbaa mu xool ko noonu kenn ca mag ña ne ma bul jooy xoolal gaynde giiru yuda ki soqi ko ci daawuda daan na ba am sañ-sañu dindi tayu yi te ubbi téere bi noonu ma gis mbote mu mel ni dañu ko rendi woon mu taxaw ca digg gàngune ma ñeenti mbindeef ya seq ko mag ña wër ko mbote ma amoon na juróom ñaari béjjén ak juróom ñaari bët ñu di juróom ñaari xeli yàlla yi ñu yónni ci àddina sépp mbote ma ñëw jël téere ba nekkoon ca loxool ndejooru ka toog ca ngàngune ma ba mu jëlee téere ba ñeenti mbindeef yi ak ñaar fukki mag ñi ak ñeent daldi dëpp seen jë ca kanamu mbote ma ku nekk yor xalam ñu yorit àndi wurus yu fees ak cuuraay yu doon misaal ñaani gaay yàlla ya ñu daldi woy woy wu bees naan yeyoo nga jël téere bi te dindi tayu yi ndaxte rees na la te jotal nga yàlla ak sa deret ay nit ñu bokk ci bépp giir kàllaama réew ak xeet def nga leen askanu saraxalekat buur yàlla sunu boroom di ko jaamu te dinañu nguuru ci àddina ma xool noonu dégg baatu malaaka yu bari yu ëppoon alfuni alfuni junniy junni malaaka ya wër ngànguune ma ak mbindeef ya ak mag ña ñuy xaacu naan mbote ma ñu rendi woon yeyoon kàttan alal xel doole teraanga ndam ak cant ma dégg itam mbindeef yi nekk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf ci géej gi mbindeef yépp naan na cant teraanga ndam ak nguur féete ak ki toog ci ngàngune mi ak mbote mi ba faaw ñeenti mbindeef ya naan amiin mag ña sukk di màggal